Oustas, euh, les faux ongles, faux cils et vernis peuvent-ils prier Yoko tar, moi, oui, yi ñuy def ci loxo yi ak seen xef yi ñuy def mu gudd euh, ak vernis émail ndax mën na mën na julli yooyu yëpp alaaji mënta julli ah. dafa bëgg lu ni mu la bindee hmm. nga mel ko boo ko dee wan ko parce que moom moo ni wa laqad karram naa bani aadama mhm. te itam laqad xalaq na al insaana fii ahsani taqwim dama bind nit ci anam bu rafet mhm. yi nga yokkal sa bopp yëpp mënta ànd ak jaamu yàlla d'accord moo xam mees mi nga yokk la mhm. xef yi nga yokk la pose ongle yi nga def ak yëpp parce que dañ ni pour nit ki julleem wér li muy sol day laab fi muy jullee laab mu bàyyi wax ju bari jàkkaarloog yàlla concentré wu doog a mën a te ànd ak boppam bañ caa yokk dara <laughs> troisième question <laughs> fast track hein? voilà fast track parce que xutba bi la ñu bëgg a fekkee ci jumaa 14 heures euh, c'est dans 5 minutes euh, oustaz quel habillement peut aller avec le voile par exemple pantalon est-il permis xam naa pour jigéen ñi surtout ban yére mo mën julli. yére bi mën julli moy yére bi laab. Ah. mais nak condition, yi mais condition yi dañ ni du xat. du ah. yaraax du xàppatiku. Sophie ndax sa tubéy ji julli na. déet déet nga tek ci abbaaya bu yaatu rek. Pape déet bu <laughs> charte bi. Euh. yére bi day laab d'abord. Uh-huh. day jot. Mm-hmm. lépp loo mën a sol ci julli en tànk que jigéen liñ la may mu feeñ. Mm-hmm. mooy sa xar kanam. kese ak say cati loxo. ak say cati tànk mu ngoog.